mais maître boo xoolee problème yi ñu jànkonteel yëpp d' abord ñu commencé par cas cas d' boobu bu Rose Wardini bi lu munoon nekk la. ah oui oui. ah man loolu laa doon xalaat. donc yan yan yan matuwaay lañu war a jëlaat pour gën a serrer le le le tri. non réew mi jafeetul. Sénégal mm-hmm. jafeetul. seulement nit ñi ñoo jafeel seen bopp jéem a jafeel Sénégal parce que Sénégal quand c'est c'est devenu maintenant une vieille nation nous on ne fait pas attention li tax dëkk monde bi yëpp jóg wax mbiru Sénégal si lii gis nga li nu monde bi xoolee tout le monde s'intéresse au Sénégal Sénégal dafa nekk espèce u bijou bijou en Afrique benn phare par l'histoire par beaucoup de chose donc muy dëkk boo xam ne dañ ko organiser woon defar ko ba lépp dëgër lépp aw yoon mais malheureusement je note et je constate comme ñu baree bari que depuis une dizaine d'années man naam tam si jamono Macky Sall la amee eh, ma astafurlah jamono Abdoulaye Wade la dooree continuer si jamono Macky Sall beaucoup de légèreté ont été vues dans le système système administratif système politique système judiciaire de sorte que les gens ne font plus leur travail entièrement je donne une preuve pour la première fois dans l'histoire du Sénégal nga gis fukki nit nekk inspecteur des impôts ñett ñi ne candidat à la présidence juróomi ne politicien professionnel la pratiquement. loolu lañ ci war a indi solution. mais mais attendez ce sont des fonctions yoo xam ne la politisation des ce sont des fonctions yoo xam ne man nga politique chaque citoyen am na droit politique taw Abdou Diouf tam au fonctionnaire de daan politique mais doo nekk au fonctionnaire dans une administration comme ça la majorité la grande majorité se révèle politicien mais c'est dangereux parce que quand on est politicien on partisan. politique partisan la neex naqari man su may politique damay faralaate man Doudou Ndoye politique faralaate la wala nga faral sa bopp wala nga am loo faral tey ki nga xam ne daf la bëgg a daaneel bëgg a daaneel ki nga faral nga yor dossier am noo ko doxalee yow. dama koy faral eh, yor dossier finance man ko contrôler fiscalement man ko contrôler douane man ko contrôler lii. sa mu bëgg a daaneel sa président sa bu ko daaneelee fal nga la fal dañ koy dindi da nga koy jox alal. moom alal trésor yaa koy signal jox koy milliard. Hmm. mu war a fay impôt fayu ko doo ko poñe pour tëral ko mu toog donc y des missions et des fonctions d'intérêt national et d'intérêt général qu'on doit protéger alors on a laissé le pays se politiser au maximum ku nekk di def lu la neex. ce sont les gouvernants mais c'est les gouvernants c'est évident le ministère des finances politique moo su nekk. mais lépp politique la tey Sénégal. Mm-hmm. boole si léegi itam beneen danger bu gën a grawati je te jure l' avenir de notre pays est en danger. pourquoi ci ban nos enfants l' école mais l' école c' est l' avenir ñu dem dañuy dee bàyyi fi doom. Mm. bàyyi fi sët suñuy sët bu ñu nekk ay ignorant di la làkkal français jëlaxaan yooyu wax arabu jëlaxaanax jaxase ko xoolal wax joolaa. Mm. loolu la ñuy def ñoom ñëpp kenn mënu fi làkkal France France France cinq minutes en français pur. olof bi tam mënu la waxal olof cinq minutes xam yaa ngi tànga yaa ngi wax kii may lay olof lay laal ma la olof laal <laughs> kenn mënatu la fi waxal olofu cinq minutes bu wér kenn mënatu la waxal france cinq minutes bu wér mais ça c'est l'avenir de notre pays qui est en jeu l'enseignement de dégringoler c'est la vérité la justice nag fa laa bokk rus naa samay xarit jafe am na ñoo mënul wax mais ñoom xam nañu xam naa. y a des petits choses ay yu ñu defal dérogation. ñuy politique alors que amuñ ci droit. <laughs> bàyyi loolu. loolu boobu sax gën a. am na koo xam ne saa yi ma waxee loolu bu menacé ma. <laughs> bàyyi man tam dama lay menacé bàyyi jàmbur bon léegi xoolal. Euh, mais mais euh, mais loolu problème de. mais lépp Sénégal lépp problème la mais mais à mon avis du problème yu grave système bi président Macky Sall la ñu utilisé moo ko ñu dégg ma naan dialogue national c' est le pire des systèmes. ah bon bien dialogue national mooy la nation xam nga mooy lan. Hmm. loolu national daf nga ne bokkoo ci. national baykat bi nekk fële yor. ci laa bokkal yor ay pom yor ay pommes de terre am ak i salade nga ne bokku si. muy dialogue national loolu la lu mel noonu la Macron doon jéem en France mais dialogue national Macron mooy dem village bu nekk quartier bu nekk fekk leen toog di xàppati di ngàppati ba ñibbi. Macky Sall ni ñëw leen sama pare ngeen nekk 600 personnes da nga ne fu 600 personnes nekk ki sol grand boobu ki sol culotte ki sol béret ku nekk tàll loxoom di wax dama dara na fa jóge la fay jógee mooy la la la nga andiwaale yow président bi moo fay jógee. c'est une hérésie. la nga andiwaale dama ne moo fay jógee waxu mag laa wax la nga andiwaale moo fay jógee si xoolal dialogue national yëpp xoolal commission yi fi dëkk yëpp lu ñu mujjee ma ne da xool justice bi. xool ñu ko mën ñu ko xam juróomi nit juróom-benn nit doy na pour sensibiliser su Sénégal luñ la wax moo fi am te dañ koy defar ba mu jeex. alors juróomi nit juróom-benn nit ñooy changer administration fiscale la ñu wax ay am mu baax juróomi nit juróom-benn nit ñooy changer douane waaye xam-xam moo yore àddina juróomi nit jor xam-xam sens nañu àddina bu leen neexee. président dafay jox la nag jox la nag nga yóbbu assemblée ñu woteel la. nga sensé réew mi ay consultation pour. Euh, ñu ñu tegaat processus euh, processus électoral bi est-ce que soxla na consultation est-ce que du sukkandiku ci lii rek. lu mu si sukkandiku loolu laa commencé lu muy consultation kan lay consulter borom kër dafa war di waxtaan ak njabootam ala kulli président bu waree dañ ko ne defal nu mu gën a gaawee mais moom kenn du yàlla il faut ñu ko jege ak ñu mu xam ak ñu mu yaakaar ak ñu mu wóolu mu laaj leen c'est le minimum ça bu ko tuddee consultation tam consultation la bu la neex nga jox ko parce que français la. yow da ngay consulter si sa kër man damay consulter sama kër damay consulter sama liggéey ñaari xale yi ànd man fii si man la ñuy liggéey amul bés bu ñu dul toog sama bureau bureau 13 heures may wax ñoom ba 14 chaque jour ci lépp nag consultation la c'est pourtant jàngunu amuñu DFM <laughs> amuñu baccalauréat mais fu ma dem ñu ngi sama wet parce que ñu ngi gis àddina di ko xam donc président de la république dafa di laaj di laajte jaadu na mais maa ngi def dialogue si système boobu kooku temps la. alors damay. loolu perdre du dafa am constat le pays n'a pas besoin de ça le pays a besoin de gens nit ñuy décider mu am décider lu baax nag defar domaine boo mënti dem champ boo dem si magistrat yeex douanier yeex impôt yeex lu mu doon xam nañ ni am nañ ay système yu baaxul am nañ yu baax ñu am nañu aay ñoo xam ne bu ñu toogee lu bon li dinañ ko dindi teg fi lu baax si domaine yëpp si mu gën a gaawee. Mm-hmm. loolu dara loolu jafewul